boo fekkee ñu tongoo nga gis ku tooñ da ko naan sëñ bi yaa tooñ daal di téye loxoom moo tax neutralité ay waxu tappale la kon mouvement boobu nga xam ne am na yow militant bi yow sympathisant bi bula la kenn nax bu ñu trompé ci combat komba bi dootul nekk ci réseaux sociaux yi diw saaga na sama leader ma saaga ko diw xas na suñu parti ma xas ko buñ leen yóbbu ci yooyu am na lu ëpp solo loolu maa ngi ciy ñëw buñ leen bu leen tardé ci loolu xaste ak saaga téewul projet bi li tubaab naan dafa mel ni bëgg a téye géej ak say loxo moo tax bàyyi leen ci loolu loolu la ñu mëne waaye dinaa leen wax ñaar ba ñett yoo xam ne tey ci fukki weer ak juróom-ñett yi ñu jëm moo war a doon yitte kenn ku nekk ci ñun ñu ciy taxaw saa su ne di ci liggéey saa su ne ba ca njëkk mooy defarwaat defarwaat nag mooy defar parti bi ci fii ak ëllëg ak wala gannaaw ëllëg dina am lu ñuy génne ci ay circulaire ay not yoo xam ne ci loolu la jëm ñaareel bi mooy préparé wu préparé ndaw ñi surtout fexe ba ñu war a bindu ñëpp bindu ci fexe ba ñu war a bindu ñëpp bindu ji waaye gannaaw ga ñu fexe ba jël seen carte électeur mooy dugg ci àll bi ci koñ yi ci ruq yi ak ci ruqaan yi fu nekk ngeen taxawal fa ay cellule gis nañ yéen a ngi koy def weekend bu ne ci Sénégal yépp maa ngi gis ngeen ciy liggéey waaye na gën a tar parce que loolu mooy liggéey bi loolu bu ngeen ko defee ñu boole ko defaraat suñu ngemb bu baax ci biir parti bi dinañ ci boole it fii rek nawet gi di jeex gën saa gudd mois de novembre bu soobee yàlla dinaa entamé man dinaa door benn tournée nationale ci biir Sénégal yépp tourné boo xam ne du benn département du ci mucc la ñu jàngat nag ci élection locale yi ak élection législative yi mooy dëkku taax yi mokk na ba noppi dëkku taax yi ñoom mënu suñ fa gañe dara bu ngeen seetloo même département yi nga xam ne ñoom moom lañu ñu dañoo ñàkk dëkku taax yi Louga dañoo ñàkk Louga commune Mbour dañoo ñàkk Mbour commune Kaolack dañoo ñàkk Kaolack commune Kolda noonu donc liggéey bi fu mu nekk léegi ñun ñëpp xam nañ ko mooy dugg ci àll bi waxtaan ak suñu mbokk àll bi parce que ñoom lañu ñu continuer di manipuler ci ay mbirum xaalis ak yeneen ak yeneen moo tax tournée bi naam dinaa def tuuti milieu milieu urbain yi waaye lu ci ëpp moom àll bi lay doon te dinañ ko def ci yoo xam ne day lalu ci nu mu tuuti tuuti fukki weer ci juróom fukki weer ak juróom-ñett yi nga xam ne moom la ñuy dëgmal waaye nag mbokk yi lii su ma ko waxee dinaa leen wax nag wax naa leen li ñu war a def waaye su ma ko daaneel dinaa leen wax nag li nga xam ne mooy ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy fexe subaak ngoon ba bëccëg pour essayer dal suñu kaw ak pour essayer bloquer yàq projet bi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey boobu ba léegi yàlla def ci lim ciy def ndax su ngeen fàttalikoo bi ñuy door kenn xamuñu ci senegal ba mu dañ 2017 ba ñuy campagne dañ doon wër ci marché yi di jeex nit ñi pour essayer am quelques personnes yu ñuy waxal 2019 gis ngeen li xew 2022 nag moom. tabaar fakal la projet boobu nag lañu bëgg fexe ba gàkkal ko ña ko bëgg nag ñaar ñii la nguuru Macky Sall la ak nguur gu ñuy wax France nguuru Macky ak nguur gu ñuy wax France ñoo ne Sénégal de ñépp mën nañ fi falu ba mu des Ousmane Sonko ndax fu mu bëgg a jëmee jëmale Sénégal baaxul ci ñun bu dee nguuru Macky Sall nag lañu ragal yëpp xam nañ ko ndax ku ñu jox réew jamono lu mat fukki euh, fukki fan ak fukki at ak ñaar nga liggéey fa li nga fi liggéey ci naka sudul noonu boo tëddee doo nelaw te yaakaar nga ni boo fi jógee musiba dal la moo tax toujours la ñuy bëgg woon ñoom mooy ñoom seen fulla gi ñuy wane ci ñàkk nekk ci dëgg moo ëpp doole fulla gi ñu war a wane ñun ci nekk dëgg gi ñu nekk dëgg xam nga ndax sénégalais dégg nañ li ma wax ñëpp xam nañ ni nekkuñu ci dëgg yoruñu réew mi ci dëgg alalu réew mi randal nañ ko lii jaay nañ ko tubaab yeeg ñeneen ak ñeneen tëj nañu ay nit ci loo xam ne du yoon duma nañu ay nit ci loo xam ne du yoon rey nañu ay nit ci loo xam ne du yoon kon loolu lan moo gën a garaaw loolu ci ñàkk nekk ci dëgg waaye malgré tout moom bëgg nañu gëmloo ni moo ñu ëpp fulla ñun gëm nañu ñoo nekk ci dëgg ci yére gu ñu am ci réew mi ci jàmm gi ñuy dawal ci réew mi ci bëgg-bëgg gi ñu am ci réew mi ak ci Afrique dama ne bu dee loolu am na ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp moo tax pexe yi bëri na. weer yi di ñëw kenn ku nekk na fagaru waajal boppam takku ndax ña ngay pexe ci wàllu terrorisme wàllu terrorisme fabriqué nañu seeni dossier yu leen neex jàpp ay nit barki démb rek kenn ci ñi ñu jàpp naan dañ leen di tuddee xaw ma lan spécial woote na de la prison ne fi ne nii bés bu ne dinañ ñëw def leen pression ne leen changé leen seen déclaration wax leen rek ni Ousmane Sonko moo ne suñu gannaaw moo ñu yónni moo ñu defloo moo ñu transféré xaalis bi bu ko defee ñu yóbbu leen ci procureur ou arrangement démb rek tey wax naa ci ak avocat yi ma nii ndem si yàlla François Mancabou la tax ñu torturer ko ba bakkanam jaar fa li may wax nii ay ñi ko jege ñoo ma ne moom moo leen ko wax ñu ko jege ci ay conseillers ne dañ ko ne il faut nga signer PV boo xam ne da ngay wax ni yow da ngay liggéey ak Ousmane Sonko que sooy dem Casamance d'ailleurs moom ngay dem seeti pour jël ay instructions yow en tant que expert yaa doon organiser moo tax daaw bi ñu bëggee dugg këram ñu amoon jafe yow yaay wook Momo nga xam ne ci samay garde la di ko jox ay instruction parce que yow xam nga suñuy technique mu lànk ne lii duma ko mës a signé parce que musuma gis Ousmane Sonko lu dul ci télé xaw ma ko musuma wax ak moom ci téléphone te man homme d'honneur la ci deret ak ci formation kon duma ko signé looloo indi toroxal yi ñu ko toroxal ba bakkanam roti may seede ci kanamu famiyam ne ñoom ñëpp war nañoo am fierté ci nit ku mel noonu yàlla méttim xam ne ni mosuma gis François Mancabou waaye ñaanoon naa yàlla mu daj dajale ma xamle ma ak nit ñu mel noonu parce que réew néew na léegi ci senegal ña ngay fenk dossier terrorisme bis bu ne ñu jàpp benn nit yokk ci ña ngay fenk dossier rébellion déggoon ngeen fii Ousmane al naka jaata Alkusin jaata Kabiling ñu dem jël ko ne kooku ñoo ngi koy togg pour fexe ba avoué ko ay mbir ne ko waxal ni yow am nga ay lien ak Ousmane Sonko ña ngay fenk dossier 94 milliards ndax ñoom avocat yi ñu dem di di saisir sax ay ay France ak yooyu xamuñu ni man yéeg naa ko dossier 94 milliards dossier siif dem nañ ba xam ni benn avocat bu mat avocat Sénégal du dugg siifu ñàkk fayda yooyu ñu dem di uti ay avocat France te consulat bi ci boppam kuy liggéey ci consulat bi moom mooy porté loolu ci dossier yoo xam ne ne nañ c'est des dossiers privés ña ngay waajal loolu également façon dossier bu ne ñu ngi koy waajal nee nañu xañ nañu léegi Ousmane Sonko immunité parlementaire donc saa su génnee di wax dañoo am seen benn laboratoire boo xam ne kàdd gune ne ñu ngi koy saytu pour ban kàddu la ñu mën a wëlbati dem tribunal pour am diffusion de fausse nouvelle wala diffamation parce que xam ngeen lan moo yitte bi du jàpp Ousmane Sonko tëj ko kaso de ndax Ousmane Sonko biir kaso moo gën a nekk xal nag Ousmane Sonko ci biti du loolu mooy seen problème seen problème mooy nu ñuy fexe ba am benn condamnation même su dee au sursis pour que Ousmane Sonko dootul nekk candidat en 2024. moo tax ma ne kenn ku nekk ci militants yi ak militantes yi na fagaru waajal boppam parce que Macky Sall waru ñoo ëpp fur la bu loolu amee rek mooy li ñuy woote ci souveraineté bi ñu bëgg ñun indépendance véritable bi ñu bëgg ci suñu réew moomaat suñu bopp bi ñu bëgg kon loolu du dëgg si ñun. li muy def yëpp nag mi ngi ko lal ci ñett ba ñeent mu ngi ko lal ci police wala ñiy commandé police mu ngi ko lal ci gendarmerie wala ñiy commandé gendarmerie mu ngi ko lal ci benn groupe magistrat boo xam ne ñëpp xam nañ leen waaye mi ngi ko lal ci benn parti média bi nga xam ne saa su ne ñu koy jox leen ne leen bind leen lu bon ci usmaan Sonko saa su ne ñu def gros titre bind lu bon waaye c'est peine perdue ndax koo xam ne yaa ngi koy fexeel boobu ba léegi tuumaal nga ko lu ne yàq nga deram te su génnoon léegi ci ci taxaw ci trottoir bi meeting am fii nga war a xam ni sa pexe na na sax na waaye buñ leen xeet ci seen i pexe rawatina nag bu ci France duggee gis nga suñu toogee Sénégal bay wax naan France kii la bëgg comme candidat kii bëgg ko comme candidat rek wane na ñun kat nañu loolu doo ko mës a gis ci pays yi nga xam ne Angleterre moo leen colonisé woon amul Nigéria amul gana amul feneen suñu demee ba journaux français yi nga xam ne ñooy porte-voix de la politique france-africaine ay le monde diplomatique RFI France 24 ñoom ñëpp ñëw Sénégal naan dañuy dem ci benn affaire privé di interviewé wala def ay article naan la France ne veut pas de Ousmane Sonko et cetera ba pousser Macky vers ceci nangam nangam ça veut dire que ñun duñu duñu réew bu indépendant est-ce que France bu amee élection am na benn sénégalais bu am sañ-sañu toog fii naan ñun de Sénégal diw diw est-ce que président Sénégal sañ na sax naan man diw laa bëgg mu nekk euh, président de la République en France lan moo tax ñun ñu ñàkk fayda ñàkk fulla ñàkk personnalité ba tey ñu ñuy patam patamee suba ngoon loolu mooy laaj bi dem nañ sax bañ ne seen dernier article bi ñu bind nee nañu Poutine gagnerait à se rapprocher de Sonko ma feddali benn mbir gis ngeen ñun ñi amul benn benn benn benn puissance étrangère bu nekk suñu gannaaw amul benn benn réew étranger bu ñu amal relation benn président en exercice bi moo mës waxal directement président africain bii la muy gine awma benn lien muy ñaari gine yi bokk aw ma benn lien avec une puissance étrangère waaye nag ma wax lu leer tey jii su ma mënoon dajeeg Poutine Poutine suba suba suba su occasion